waaw boo koy ndox ba tey ñu nekk ak le grand champion Mbaye Tine bu école Lune Mor Faram mu bëre récemment daal ci am savane champion ñu ngi lay ziar di la nuyu. waaw maa ngi lay fay di sant yàlla bu baax julli ci yonante bi sant samay ñaari waajur sant sama sëriñ Cheikh Modou Gueye di sant waa géej waay gi yëpp di sant champion Moussa Balla Gueye tamit waaw di encourage am lycée oui. mais champion bu ñu xoolee sa dernier combat keroog ñu ñëwee anam bi nga ko bëree dafa jaaxal ñu bëri lan moo xew. waaw lamb ju nekk ak anam dëgg la maa ngi ci élection yi mais sama santé may na ma moo bëre waaw mais maa ngi santat yàlla war a liggéeyaat ñu joxam yeneen combat ma fayaat bor rek waaw. man su ma la déggee li nga nekkoon ci élection yi xaw na yàq tuuti sa préparation. waaw xaw naa yàq tuuti sama préparation parce que moo motul sax un mois moo tax mais yàlla baax na jàmm ak pexam rek bul yàlla ak dogaram waaw dañuy defaat leneen pour suñu borom may ñu ndam rek. problème santé bi lan la woon. sande bi moy comme rek euh, waajaluñu bu baax a baax comme mu waré waaw ñu ngi ci sande yalla bu baax nak di nuyu wa géej waa géej yëpp waaw di sande bayri Sey pap cham xam nga madame le maire ak ñom rasul taala baduli ñëpp japp nañ ci war na yàlla ak sama président fan club ñom xaarim ñom paré yépp waaw mais ñu gis kërëm nga bëri am ci savane comme nima ko waxé légui mais technicien yu bëri daan nga xamante ne mooy mbaytin mën nam da koy forcer de trop muy mbot bi pourtant gaay dañu gis mbot rek jëluma sax di suma mbot nañ xool samay combat yëpp combat bu ak ku ma daan nu mu lay daanee waaw mais ñu ngi may rectifier ak yeneen ak yeneen bi ma ñëwaatee dañoo am lépp dëgg la yàlla baax na. maanaam si gàttal yaa ngi sa roq di defaru. waaw damay toog a jóge Porokhane nag. waaw ñun ay murit lañu. waaw dañuy ñaan yàlla yàlla def jàmm rek ba ba prochain combat. waaw bu loolu weesoo ñan nga jàpp ñoo nga war a mën a parce que adversaire koo tudd ci télé rek mu indi problème dañ ñaan yàlla rek. képp ku ñuy jël yàlla doon ndam yàlla doon ndam waaw. champion ñu lay sant bu baax di la gërëm. waaw di leen ñaanal yàlla seen télé bi ak ñëpp mu dem ci kanam daal yaa ma gën a xam yéen a ngi toj réew mi waaw. waaw boo koy na di ba tey ñu nekk ak champion boo xam te ne kenn doon ko présenté muy fëgg doon daanaan boo xam te ne xam nañ ko champion ñu lay ziar. waaw ñu leen ziar bu wér xam di leen bëggee yaag sa caméraman waaw ah, di suivre site bi bu baax di leen ñaanal jàmm daal suñu borom defal leen ak yokkute ah waa champion ñu dégg récemment sa combat ak double moteur lan moo waral nga jël ko parce que doo leen dégg sa combat ak ñeneen. waaw waaw comme ñeneen ñi dañuy wax tey suba waxuñu demuñu mbaar xam nga xëcc ñu dara mu teng ñu gis ne moom nekk na fi xale la mi ngi prouvé ñu fay ñu lu ñu jaral ñu jël ko loolu la jël ko pour am ci ndam rek waaw mais ñun ak ñeneen la woon mais comme ñooñu waxuñu dara te presque lamb yaa ngi tëj ñu jël ko pour compétir. kese ku ci mel ne kan ak kan. non bari na instant yii c'est trop tard ma leen tudd buma paré dinañ bëre ma ak ñoom mënul ñaar parce que ñoom ñëpp année balance lamb ji tëj na paré ñu dégg aussi sœur revanche ak Aline Sey numéro 2 combat ba fan ngeen ci tolloon. wa non déggu ma ko nag loolu déggu ma ko quoi mësna ko dégg ben yoon mais yag na daw la ko déggon ma paré won ba joxe sama accord mais déggatuma ci dara quoi. toll yaa yang ci waccay sen combat amna dat wala amagul dat amagul dat nak ñu wax Assane mu gaaw rek def dat parce que comme paré nañ fekk nañ ñu paré mu gaaw def dat rek ñu paré ci lool seeti lenen toll dal paré nga dal yang ci waccay ba paré nañ ba ñuy dem di tukki ñu won pour boy bobu dañu liggéeyoon pour ñenen mais comme mom moom fi nek lamb boole nañu dañuy nangu ñëw bëreeg moom. kon jàpp nga ne objectif bi nekul duul moto da ko jël ngir baña tok def année balance. non compétir man damay compétir buma démé ba gis né namay nara def année balance damay waxtaan ak staff bi ñu jël ko pour compétir mais du mom mo taxone sax ma tukki pour entraîner ji du pour mom eh champion ñu lay sante baax di ma waaw maa leen bëggee bu wër di ñaanal site bi guddu xam nga ci yokku ba ay télé télé xatch ah. ha seigne fallo jaajëf ba bokki ba tay ñu nekk ak ali sey numéro 2 le grand champion tay mu daal andi lakam turandoom ali sey junior mbeur ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw patron bu mag bi maa ngi lay ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay maa ngi lay ziar wér wér waaw sant yàlla rek préparé na war a préparé di xaar yàlla may ñu ndam rek ci barke Seydina Mohamed loolu rek mooy l'essentiel bi amul leneen booy waaj na lu mu war a waaj yëpp ci côté entraînement yi mystique moral lépp pare nañ ci moom fu ne nii moom yàlla rek moo ci des yàlla miy may ndam nag te ko joxe te ku mu jox ndam nga ndam yàlla ñu yàlla mais aussi bu ñëwé ci anam bu ñu bëri adversaire bom dafa offensive lay bëri waaw adversaire bom ci katan yalla ñun xol ñu mu indi ak lu mu mën ñu lu ñu mën ak lu ñu entraîner mo lo wañu concerné ci katan yalla loolu lañ koy indil am ben problème bu yebo mu offensive bu yebo mu défensive bu yebo mu dem latéral gauche ci katan yalla ñun daal lu ñu entraînement loolu lañu indi ci katan yalla loolu wéso mujjé ci torop torop digënté ak double moteur est ce combat bi loolu doon pression ci kaw non do pression do pression xeyna combat wo joom la won rek mais ci katan yalla dañu ko rectifier fi inshallah incha allah. pare ngeen ci côté yëpp. pare nañ ci côté yëpp ñaane fu mu moom yàlla rek moo si ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu ndam Seydou Guy ci barke Seydou Naama. lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf jërëjëf. waaw ba tey bokk internet ñu nekk ak le coach de l'écurie Waalo coach Rone tey mu ñëw ànd ci per kenn ci ay problème Alioune Seye Junior ñu ngi lay nuyu. waaw mooy ñu ngi leen di waa Guédiawaye info du ma taay di ko wax parce que nee naan parce que suma soon ni ni ni ni télévision yi bëré ci dëkk bi non la sibi di di di di di nek paru na la mondo ma la ko ñaan parce que suñu mbir la ñu ñoko mom di nga xam surtout ma yow nga xam nak suñu rak nga suñu frère nga ki nga xam nak mom poste buy dem lepp la ci def bon ñu ngi di remercier di ñaan suñu suñu borom kaaw kaaw ko ba ci kanam kanam tay nga andi tay ko xam tay suppléant la bok Aline Seizior nan nga gisé état de forme wa moy limu ko wax ñun luñu wara def nañ ko parce que mi nga and ak boy la matin 6h du matin di dem di ñu dowan pël ya xam la la ngoon le soir mi nga ñëw salle ba di contact ko li mëna moy lamb fu lak fayda la li may wax boy mën leen lamb du sëriñ fu lak fayda ak jom mbeur mu ci def fu lak fayda da ngay daan ku ci foy nak gaay daan la man limay digal moy li ma def nañ ko damay bàyyi sama lepp ñëw and ak yow entraînement matay bi nga ànd ak dem diini too an pele liggey ba tass kon na bo nee lamb da ngay def fu lak fayda di ñaan suñu borom mi may nam nak ma ñu ndam waaw ah lool amna mais muy bëre adversaire bo am te dafa danger day xex day bëre est ce liggey ngeen ci côté bobu waaw parce que problème mooy adversaire bo xamni bon benn sa mooy daf ñu sous-estimé pour ni moo mën adversaire bi te lamb dafa doy waar mais booy bi li ko wax bu ko defee mooy lamb da ngay toog say tànk xam nga la adversaire bi boo ko nga ak nga ko désexé mais adversaire bi rek mooy loolu parce que dafa dafa diisee suuf kon la ñu ñu war def nañ ko ko moom nag am fulla ak fayda ak jom am patience jàng adversaire bi xam ne ci ay tànkam bëree fulla ak fayda ak jom suñu borom may ko ñu gis aussi tolof tolof ak est ce pression ci kaw waaw non ci victoire la jógee sax parce moo daan moo daan mbay mbay jiw xam nga la mais jege l'essentiel xam nga ama duur ma doon noonu la war demee mais combat bi combat la boo xam ne bu ñu fonk la waaw parce que gis nañ ci bi demee ci bi kon combat bi combat la boo xam ñu ko ñàkk ñu ngi suñu borom mi am ndam da koy may ñaan ñu ko ci barke yonent bi alayhi salaatu suñu lay sant bu baax di la. merci jërëjëf am leen jàmm wa bokk kenn doon na di ba ñu nek ak course mbay guuy gi tay mu ñew andi problème moo war a ak alice Seye Junior coach ñu ngi lay ziar di la nuyu. wa ma ngi leen di fay yeen eh, journaliste yi ci seen liggéey bu rafet andi na sama mbeur ma ngi xaar. tay nga andi sa problème moo war ak alice Junior nan nga ci état de forme wa mbay préparé na luma 3 mois. préparé na ko physique ndax tay lima gis moy boy bi dafa dafa oyof léegi daf ko bëgg a du nango japanté bi day xel di déplacer wu di xex di daw. mbay Diop mu Sonko loolu rek a mën a am ci combat bi leneen amu ci te loolu lépp liggéey naa ci ay mois mois kon léegi nag li may xalaat léegi li res euh, dans quelque temps rek mu won leen li ma indi. mais est bi nga xamante ne Mbaye Gouy Gui jël na ko mënu koo sonal ci combat bi. non dama ko cee physique loo yëg ko yëgloo ko ci din lu bari matin et def loo ko sabda boog sa bu bari bari ndax ku ne xam ne Ikri Waalo man maa ngi def vingt ans ci lamb Ikri Waalo booy dajeeg ñoom toujours. na nga xamne bañ xex bëgg xex ndax dañoo am arrêt loolu sen sen sen mënin la ci nit ki lu mu mëne nak da ngay fexé noko faté ndax boy dem guerre da ngay yobbu say ko ci wax nga ko léegi écrit waalo xex mom dañ ko mën macha allah mais aussi da doon mbeur boo xam tam mën a bëree Alioune bu sob ci bëree waaw waaw mom mëna a bëreem rek daf lay ciokas daw nga jog mu sacc la té du song ñaari tang li ëpp benn lay song sukkër bi la chaque jour maa koy ci youtube bi duma nelew guddi ñëpp daal jàng nga bu baax. bu baax a baax ndax moom rek laay xool ndax dama bëgg lekk ci millions yi te moom mënumaa tee dugg incha allahu rabbi. loolu am na solo ñu sant baax di la. incha allahu yéen ci yéen ci liggéey bu rafet. waaw ba xale Alioune Seye yaa ngi noonu. yaa ngi noonu yàlla lépp jàmm waa mais kontaan rek am xol bu sedd loolu sant yàlla gërëm Serigne Bamba bu baax a baax tey am kontaan ci Serigne Fallou Ndiaye production di am kontaan ci réew Sénégal di bëgg ci ñëpp di ñaan jàmm sax ci réew mi su ma xol seet na. bu loolu weesoo ana waa 3S. ñu ngi nii waa 3S fii ngi nii ñoom laa àndal ni teew ci bis bi. nekk ngi ci kawam ñoo ngi góorgóorlu. Sénégal namm nañ la. waaye bi laay mën a raw. jaajëfal naa su xol seet na. boo ko Euh, mu ngi doon ref ci révélation yi di wane boppam bu baax mbër ñu ngi lay ziar. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul dawlax al misbah karafal maa ngi lay fay. nga am combat war a bëri on le fou le 27 avril prochain moo tax nga jël combat boobu. waaw on dama nekk suñu grand frère jëriñ si làmb rek. waa loolu ma la ñu jël ko pour lancer wu quoi pour yéeg gars yi ñu chance ñu ñu déggoon aussi sa diggante ak ki nga xamante ne mooy euh, euh, ki nga xamante ne aussi mooy mooy mooy mooy euh, nu mu tudd sa bi bëri woon ak Pa Boy Djiné est-ce que loolu jot na la contact pour combat boobu. non instant bii si avance ma ne on le fuula di ñaan yàlla ndam ne on gëj moo njëriñ si làmb ñaan yàlla ndam rek waaw. baax na ñu lay sant bu baax di waaw ba tey rek mbokk internet ñu nekk ak le ki nga xamante ne kër door ko président de Salam Diamou ndeysaan man sax dama koy bëggee saf Sénégal saf ñëpp grand ziar naa waaw mais fils delloo naa la ziar dëgg tey ci loo nekk san Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Moustapha mais ñu gëj la dégg fan nga toll maa ngi fi rek jàmm ak salaam maa ngi ci jàmm ak salaam mais ma ci wàllu ambiance fan nga ci toll maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci bu baax tey dama ñëw ci li nga xam ni mooy làmb ji sama doom sama mbokk taalibe euh, Omaro mu Cheikh Béthio buñ ko tuddee làmb ma doon papaam mu invité ma ci dama war a mën a teew bëgg làmb lool nag et puis c'est la première fois ma ñëw ci stade bi xoolaale ko donc loolu mooy sama tànk tey. bi nga ci làmb maa ngi doog a ñëw nice nice nice. Sénégal namm nañ la en tout cas. booy nice wax loolu ma bëgg a wax. maa la gën a raw. ñu ngi lay ziar wala boog. <laughs> jërëjëf waaw boog internet yi Bécaye neuvième combat mi ngi noonu toujours fii ci arène nationale diggante ki nga xamante mooy Paul Maurice mu nekk écurie Mansour moo ngemb ngemb lu weex lu noonu daal am euh, morso bu xonq bi moo ki nga xamante ne mooy abooy abooy moo gën a moo ngemb ngemb Lagos bi daal di jàkkaarloo ñun maa ngi feggoog ki nga xamante ne mooy tey suma consultant euh, Khadim Anta maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Thiandoum 2 di ziar waa Guèye waa Evo. loo xam ci ñaari xale yi. di wax ngeen dal jàmm waaw abooy musul dëgg mu ñor moo cokkaas noonu Paul Maurice numéro 2 maa Mansour Mbaye ñaar ña nga leewaatoo tolloo ñoom ñaar waaye combat bi bu jeexee grand combat mooy ñëw Alioune Seye Junior bu waalo bay guy gi ba ta jonn ñaari mbër ña ngay lewaatoo ba tey jàndum dara amagul ñi ngi xeex ñoom ñaar mais bu dib la ñuy leetoo ku nekk ngi déglu sa morom diggante pël mu sax ki nga xamante ne mooy abo attention xeex nañ jàppante nañ ah dara mën na am daw jël jàppante nañ ñoom ñaar pël Maurice aboy ña ngay jàppante ma nga yóotu ngeen waaye jotul Paul Maurice aboy ngi ràcc rek dafa ràcc waaw gis nga ràcc na ñaari bërekat lan Paul Maurice aboy kal na ko ci suuf mu bañ Paul Maurice ma nga yóotu ngeen rek waaye jotul ma nga yóotu ngeen waaye jotul kalaat nañ ko kalaat na ko ndeysaan xaalim ñaar xale ñu ngi bëree kal na ko mais bañ na ñaar xale yaa ngi bëree boy mbeurum tànk la ndeysaan ah boy mbeurum tànk la gis nga nam ko tala ci suuf kalaat na ko troisième fois mu ko kal mais bañ attention hey Paul Maurice na matu mu matu mu pièce ko ci kal attention waaw ndax trois fois demul na ñaar mu suma consultant nekk nekk lamb lot tey ma fekk ak moom di kontaan trop daal di fekk ak moom Thiandoum maa ngi sa ginnaaw yaay xalifa général bi déedéet maa ngi sa ginnaaw yaay sama ñaar xale yaa ngi noonu ndeysaan Paul Maurice Paul Maurice Aboy ñi noonu ñi ngi jàppante rek daal dégloonte attention mi ngi koy jéem a di ko taf ata Paul Maurice bañ na ñoom ñaar ñu bëree ñaar xale yaa ngi ci ñaar xale yi ba tey jàppante nañ Thiandoum amul round d'observation. round d'observation amul ñaar dafa tolloo ñoom ñaar. dañu prime rek ñu ne runkum daje sama waa ji. dañu ñu ne runkum daje. Ada Fass da noonu di génn. waaw ah, ndeysaan xale am xale bu am mbooloo la. avenir te dañ koy présenté ay six six grands combats. ndeysaan attention taxan na ko ah! daanu na. aboy daanu na Paul daanu daanu na jànd. ah la. ah booy daanu na Pape Demba. da koo jéem a fàqal rek mu daal koy wéyale bàyyi ko mu jiitu Malick ko jël si nga gis mu jël ko. mooy mooy Malick Thiombane. Malick Thiombane na Papa Sow. lamba ngi nii. kii daan na a dégg mu ne rek bul takk ngem. déedéet lambu daanu da cee bokk. gis nañ ko ci Modou gis ko fu nekk gis ko gis ko tamit ci Lac de Guiers gis nañ ko fu nekk. keroog Yaxya Diop yëg ne bu ñu koy daan le le 22 avril 2012 yaa ko waxoon du gëm. Alioune mbay ko ñun dina amal li nga xam te mooy la bataille mystique. mooy xaalim xaalim ànd suma consultant mu nekk un combat qui s'annonce combat très tactique. vu la forme physique des deux adversaires ils sont pleins en forme Aliou Seye plus vivace plus rapide mais Mbaye Gouye avec une masse musculaire plus manifeste que son adversaire est-ce qu'Aliou Seye Junior réussira à faire parler sa vivacité et sa rapidité mais aussi est-ce que Mbaye va imposer son, sa masse musculaire, mais aussi sa puissance devant Alice Junior La réponse est tout à l'heure. Khalid. waaw Thiandoum arbitre bi va waaj a soufflé mu ngi leen Alice Junior taxawal nii Mbaye Gouy Gui taxawal nii arbitre baa ngi leen laaj consulte na si si soufflé dimanche 31 mars. Thiandoum arbitre soufflé dimanche 31 mars 2019 Alice Junior de l'équipe de la droite. Mbaye Gouy Gui de l'équipe de Mbada Dione à gauche jàppante na Alisson daw na jël ko ah Mbaye Gouy plaqué daan na doole doole